bismillah rahmaani rahim wasalaatu wasalaam la rasulillah mawlana muhammadin wala alihi wa man wallah talaata moom moo yemook 27 août 2024 waaye moom mooy yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru safar 1446 mbokk yi xarit yi rawatina ñi nekk jamaatul islah ñu ngi leen di nuyu den ziara den baalu ak den baal ak fas yéene ànd ak yéen ci xibaar yi nga xam ne moom moo tukkee foofee ci Palestine mu mel ne dañ koy tàmbalee ci xew-xew boo xam ne xew-xew bu yéeme la ci wax waaye xew-xew la bu yéeme ci xalaat moom mooy président Mahmoud Abbas mooy ki nga xam ne moom mooy président Palestine te foofu moom niki tey day dem foofee ci Riyad Riyad na moom mooy capitalu arabi Saoudite li ko fa tax a dem nag moom mooy jéem a am ndëgër laay ngir ñooñu mën a wax ak ñi nga xam ne moom mooy euh, ñoom Benyamin ñaaw wax ak yahuut yi ngir mu mën a dem xooli fi nga xam ne moom mooy Gaza mën koo visiter kon nag jàpp leen ne daal. ki nga xam ne moom mooy président Palestine muy Mahmoud Abbas niki tey dina dem fi nga xam ne mooy Riyad li ci xaw a yéeme mooy faw ñu leeral parce que ñu bari jàpp ne euh, Palestine réew la mu amul président ah kay na président xam nga boo xoolee doxalin yi ëpp ci àdduna bi ñaari doxalin la maanaam ci wàllu nguur dafa am lu ñuy wax régime présidentiel ak régime parlementaire régime présidentiel mooy comme Sénégal bu ñu la xasee def président yow yaay fal yow yaay folli yow yaay fal ñi nga xam ne ay civil lañ yaay fal ñi moom mooy militaire yi rawatina ministres yi yaa leen di nommé yaay nommé directeurs généraux yi waaye yaay nommé PCA yi ak yeneen i yeneen yoo yaa koy def ci ay nomination yow yaay jox grade ñi nga xam ñoo nekk ci wàllu armée bi ak yu ni mel kooku moom président mooy régime présidentiel loolu mooy anisaamuri asi moom maanaam doxalin boo xam ne président moom mooy jiitu waaye nag ci beneen am na lu ñuy tudd anisaamu parlement yi régime parlementaire nga xam foofu premier ministre bi moom mooy ëppi sañ-sañ ci lu baree bari loolu sa boo xoolee moom moo dal Israël Israël am nañ président waaye boo xoolee président bi daanaka ay liggéeyam weesuut lu dul lu néew néew lay doon est-ce que ci wàllu ambassade yi daal ngay yilif ci biti waaye lépp boo xoolee Benjamin Netanyahu moom moo koy def moom moo yor ay nomination mooy nommé ministre yi moo yor lu ni mel loolu tam moom moo dal tam fi nga mooy Palestine Palestine ñoom dañu jël li ñuy wax euh, régime parlementaire comme waa Israël moo tax gis nga bi ñu njëkkee dem élection ki nga xam ne moom mooy Yasser Arafat nekk président après Mahmoud Abbas la jox mandat bi Mahmoud Abbas na moom mooy président bi waaye dem nañ benn jëmi jamono muy en 2016 ñu daal def benn élection waa Hamas daal di nguur gi waroon a doxal moom moo waraloon Ismaïl Haniyeh nekkoon li ñuy tuddee chef du gouvernement maanaam nekkoon. premier ministre bu Mahmoud Abbas ci kaw loolu sax ci la doon taxaw nag bu taxawal ay régime commencé samp ay ministre mag yooyu ci la daal di fitna bi daal di ñëw ci kawam ñu daal leen di jël dal seen kaw def leen mouvement terroriste daal di yàq seen victoire boobu loolu moo jur fitna boobu kon nag jàpp leen ba léegi Mahmoud Abbas moom des na nekk président xanaa leen li nga xam ne tam Palestine wute na koog réew yi mooy ñoom régime bi ñu yor moom la ñu autonomie maanaam ñoom bu yoruñu xukkumu zaat lañ yor maanaam ñoom nguur gi ñu yor du nguur goo xam ne dafa mel ni comme nguur geneen maanaam dafa am yenn sañ-sañ ñu am ak sañ ñu amul ci gàttal daal ñoom amuñu li ñuy tuddee armée ñoom nag am nañ ay police am nañ ay ministère am nañ lu bari am na mu luy dugg ci seen loxo comme ay frais douaniers donc Mahmoud Abbas moomu nag dafa soxla pour mu xam Gaza waaye jamono bii foo mu dem Arabie Saoudite dem na Arabie Saoudite nag pour ñu daal di koy eh, jàppale ngir gën a mën a waxtaan ñoom naka lañ koy noonu mbokk yi Israël di songu béréb bi nga xam ne moom la ñu wax Tal Hawa ci ndeyjooru sow dëkk bi di Gaza ak penku ak penku ba ci quartier bi ñuy wax zaytun ci foofu tamit beneen bi mooy wax Kataayibul Qassam muy kuréel gi nga xam ne ñoo gàddul ngànnaay waa Hamas ñoom demb def nañ jéego yu rëy rey ci daal di nërmel ay mbooloo Israël ci seen i kàmb yooyu ñuy tuddee tunnel rawatina nga xam ne day nekk kàmb yoo xam ne ñoom dañ ko xereñi ci loolee daal fexe nañ démb ba daal di naxtaan mbooloo moo xam ne waa Israël lañ yoo xam ne sax dañoo duggoon ci benn kër di fa làqatu ndeke ne kër googu ñu dugg fa ñu jaare ci benn tunnel boo xam ne xamuñu ko ñu di dóor nga xam mooy roquette TBG loolu nag nekkoon ba bañ leen koy dóor nag dara mun leen woon a gàllank mënu mënu koon fànq ba du ak seen ñoom daanaka juróomi soldat lañ yoo xam ne tàbbal nañu leen ñii daal di faatu faatu bu daal di gaaw ci euh, foofee ñu leen tàbbal ki nga xam ne mooy kuréel bi nga xam ne mooy yëngatu ci wàllu ñi ñuy ci wàllu Palestine ñu leen di tuddee Naadi Asiril Falastini démb nee nañ Israël jàpp na fukki palestinien ak juróom loolu am na nit ki démb société civile bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Gaza mooy ñiy dimbali askan bi wax nañ ne Israël daal dinay nekk koo xam ne ko xarañ la ci ni muy faagaagalee doomi palestine yi donte mu yéex mu gaaw waaye nag nee na am na ci ay yoonu yoonu yéeme yéeme bokk na ci rek xañ gim leen xañ li nga xam ne moom mooy mën a dem faju ji te ñu nekk ñoo xam dañu feebar ñaareel bi moom mooy sant gim leen di sant ñu buur génn seen dëkk dem feneen loolu nga xam ne buur googu dëgg-dëgg ñuy am na ñoo xam dañu ne ñoom du ñu génn mukk des seen kër yi jaral na leen jaay seen bakkan ci loolu nag nga gis ne kon saa su nekk loolu mu ngi andi ay mbir yu doy doy beneen bi mooy ci wàllu médecine li nga xam ne moom la ñu maanaam docteur yi fa nekk li ñu li ñu yor ci ay matériel mala yor ko ci ay jumtukaay mënees koo jëfandikoo ba dimbali ñi nga xam ne ñoo fa nekk moo tax sax li nga moom mooy eh, ñaq yi ñu war a def ci ñi nga xamante ni dëgg-dëgg ay xale yi am feebaru jadd muy poliomyélite loolu tamit gis nga amu ci benn garantie donc jafe-jafe yi nekk loo xam te lu méttee métti la surtout ci xale yi nga xam ne war na leen ñàkk ci foofulee dëkk bi ñu wax dar balax dëkk bi ñu wax dar balax démb jàpp leen ne gàddaayloo nañ fa ay nit gàddaayloo yu mettee métti gàddaayloo yoo xamante ñenn ñi dañoo bañ ne duñu génn seen kër na ngeen jàpp ne ñaar téeméeri junni ak juróom fukk ci ay doomi palestinien ñu ngi leen gàddaayloo ci ñetti fan yi nga xamante ni dëgg dëgg te fa ñu jëm daanaka ñaar fukki place la ak juróom yoo xam ne la fa war a nekk pour mën leen a accueillir mën leen a toppatoo new fa benn njiit ci njiit waa Hamas waxuñu turam mucc na ci Israël bañ ko jéemee faagaagal bii pa Liban la ci dëkk bi ñu wax Seyda loolu nag moom siw na démb lool ci kuñ doon jéem a faagaagal nekk koo xamante ne kenn la ci kàngami Hamas yi xamaguñu nag ku mu doon nag ministre de affaires étrangères bu Iran daa di ne Israël Israël ma ngay soppi dëgg-dëgg yi nga xamante mu ngay soppi li am tey waa Hezbollah am ko ci kawam ci ay ci ay ci ay ngañaay waaye loolu mënu ko soppi ndax li am ba leer mooy ne ak ragal moom moo ci ñoom fi mu toll ñu di jàpp leen ne démb am na ay song yoo xam ne ci wàllu militaire ba léegi ñoo nga xamante ni dëgg-dëgg ñoom ñooy waa ñiy xeexal l'islam muy waa Hezbollah def na ko ànd ak donte américains yi ñu ngi doon dëgëral ki nga xam ne moom mooy Israël te mënuñ ci loolu dara ministre bi nga xam ne moo yor wàllu kaaraange biir réew mi ci Israël maa ngi ca benn xam ne ku doy doy waar la démb andi na ay kaddu yoo xamante ni tiital na àdduna bi rawatina monde arabe ak monde musulman te moom mooy jéem a taxawal benn église muy maanaam benn jullikaay ci fi nga xamante ni moom mooy masjidul aqsa kon nag jàpp loolu la wax li ki moo tax sax démb daal di waa Hamas daal di gaalu addu wax ak ñi nga xam ne mooy taskatu xibaar yi ne leen kaddu gi génnee ci kii nga xam ne mooy Ben Gvir kaddu gu raklu la ndax kaddu la goo xam ne mooy dañuy jéem a tabax benn église wala synagogue muy place bi ñuy jullee ci fi nga xamante ni moom mooy euh, euh, fi nga xam ne mooy masjidul aqsa mu ne loolu nag dafay fësal xar kanamu yahut yi ci li ñu jàng ci seen téere boobu ñuy tuddee talmud nga xamante ni dëgg-dëgg def nañ fa yu doy de waaye itam palang la mu ne bu doy de waar la boo xamante ni mu nga jugee ci kuréelu yahut yi seen jubluwaay mooy mabbu jàkk ji taxawal seen loolu ñuy tuddee seen benn haykal muy maanaam seen benn seen palaasu jaamukaay yàlla boobu ñuy wax mu ne nag ñaawteef yooyu ak palang yooyu nga xam ne mu nga jugee ci saay-saay bii di benn xafir ak ci gouvernement bi nga xamante ni ci ñaawteef la nekk mënta mucc ci soppi dëgg-dëgg li tubaab nan identité maanaam daal euh, judduwaale jàkk ji maanaam ju melokaanu jàkk ji ci cosaan mënu ko soppi mug daal ndax jàkk jo dina des nekk melokaan boo xamante ni ku ko xool xam ne fii la yonent bi aleyhi salaam rañaane woon jàkk jooju dina des di lu ñu barkeel ni ko noonu madinatul xus dina des nekk loo xamante ni askan bi dañ koy tiitro waaye duñ bàyyi ñi nga xam ne mooy waa Israël ñu daal di koy jël màbb ko buñ ko màbbee nag daal di koy jël nag samp fa ta seen i seen i seen i ñu nga xam ñoom nekk ci umma bi waa ñooy wax ñu ngi woo ñi nga xam ne ñuy njiit yi ak responsable yi yi ñu daal di taxaw fësal seen responsabilité ci jéem a nag taxaw nag dëgëral peuple palestine nag ngir mën a jàkkaarloo plan yi nga xam ne benn xafir ak kuréelam bi nga xam ne ay ñaawteef la ñu namm nar nañ koo def te mooy fexe ba faagaagal lépp loo xamante ni dafay nuroog l'islam foofee ci gox boobu ba fa samp li nga xam ne moom mooy seen euh, jàkk jooju kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu jéem am ak yeewute daal di takkaat seen digg jéem a ko défendre ci ñaawteef yi nga xam ne ak palang yi nga xamante ni dëgg-dëgg waa ñii ñu ngi koy def ministre de la santé bi nekk Gaza nee na ci dëgg-dëgg lu mat ñeent fukki junniy doomu aadama ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñoom ñooy ñi ñàkk seen bakkan ci waa Palestine niki noonu juróom ñeent fukki junni ak ñett ak juróomi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo loru Israël def ay ñaawteef yoo xamante niki démb rek natt nañu lu toll ak fanweer ak ñett ci ay doomi Palestine ñàkk seen bakkan ak juróom benn fukk ak juróom benn yoo xam ne yegg si nañ ci l'hôpital ya beneen wàll moom mooy li nga xam ne waa Israël ñoom ñu ngi koy wax ci seen jëmi bopp te mooy kuréel gii ci ñoom di liwaawu julaani liwaawu julaani ku ne xam ne mooy kuréelu militaires yi ëpp doole ci waa Israël ñoo fa gën a dëgër ñoo fa ëpp doole kuréel googu la wax ne ñoom daj nañu lu mburu dul daj ci taal ndax daanaka li ëpp ci ñoom ñàkk nañu seen bakken lor nañu leen lor yu métte métti ci foofee ci Gaza beneen kuréel boo xam ne yëngatu ci wàllu jaay jënd waaye bii paa ci géej gi la ñooñu du ñenn lu waa Grande-Bretagne démb nemmeeku nañ seen benn gaal boo xam ne mu demee ci géej gi ba àgg ci juróom fukki euh, mètre ak juróom juróom fukki kilomètre ak juróom daal nañ ko fay dóor mu daal di daanu foofee ci Aden maanaam ci penku Aden maanaam foofee ci Yaman kilifa gi nga xam ne moom moo jiite wàllu parti opposition bi di kujje gi nekk bi Israël ñu koy wax parti du travail Yair Golan Yair Golan démb nee na kaddu yi nga xam ne mu ngi jóge ci benn affaire mi nga xam ne moo yor kaaraange suñu mi nee na kaddu la yoo xamante ni ma ngay gaaral Israël jaar su nekk ci ay njommeeg du responsabilité bi nag mu ngi ci ñi ko tànn muy Benyamin Netanyahu ci beneen wàll kataayibu Shahid Abu Ali Mustafa démb daal di def lu xereñ ci ay roquettes yoo xamante ni jubale na ko ci mbooloo moo xam ne ñu ngi woon ci penku dëkk bi ñoo darbalax nekk jigéenoon ci bërëb bi ñuy daal leen di dóor ay owen yoo xam ne soixante millimètres la yu leen dal ci yu dal ci kaw Israël Hezbollah woy di bombarder bërëb yi nga xam ne waa Israël ñu fa samp seen i di xool li xew ci àdduna bi ñu koy tuddee Ramia foofu demb la waa Hezbollah daal di bombarder lool bombarder bu méttee Anorawa Anorawa nekk organisation bi nga xamante ni muy benn kuréel buy dimbali doomi palestiniens yi nee na démb bu xoolee ñetti teen ñetti teen ñoo des ci fukki teen ak juróom-ñett yi nekkoon Darbalax te askan wi daan ko mu nekk teen yoo xam wala ba ci biir mine di génne ndox mu neex jamono bi may wax ni nee na téeméer boo jël juróom ñett fukk juróomi ña sonn lool pour am ndox mu ñu naan mbaa bu ñu sangoo ñu gis démb fële réew mi di Irlande ñoo xamante ne activiste lañ leen di wax maanaam ñoo xam ne dañuy fësal seen kàddu ci côté ci réseaux sociaux yi ak di yee doomu aadama yi ngir ñu deltu ginnaaw ci to gi ci àddina démb ñoom ci seen bopp ñoo sol seen i dàll dugg ci boutique yu mag yi li yi nga xam ne dañu ëmb mbooleem xeetu produit ñu fay seet ci biir rayon yi maanaam ci la euh, marchandise yi nga xam ñoo jóge Israël bokk réew yi nga xam ñoo dëgëral Israël seen marchandise yooyu lañ doon jël ko wàccee di ko sànni ci biti yi waa Égypte ñoom wax nañ ne ci di jëlee ko ci kàddu gi koo xam ne ko am solo la ci ñoom nee na li nga xam ne moom mooy góorgóorlu pour dëgg mën a am maanaam jàmm mën a am ci ñaari wàll yi loole ñu nga ci am taxawaay bu dëgër dëgër boo xam ne des na ci kanam tuuti jàmm dana am foofu waaye teewul nag gis nañu ñeent ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakken ak ñoo xam ne lor nañ leen ci ay ñu am ay gaañu gaañu yu métti ci béréb bi nga xam mantiqatu mawaasi foofee ci xaan Yunus kenn defu ko ku dul Israël ci beneen wàll Israël yu benn journal la buy génnee Israël ki nga xam ne mooy bureau Netanyahu wax na ñi nga xam ne ñoom ay doomi Israël la ñu dëkkaloon leen foofee ci bande Gaza mooy li wër Gaza ak ñi dëkkoon ci càmmuñu Palestine tim Hezbollah te ñu mujjeen woon wax nañu génn seen kër yi ndax musiba bi nee na ñooñu boo yeboo nañu gën a des ci hôtel yi bala 31 décembre ndax jamono bi may wax ni mënaguñoo dellu seen i béréb yooyu ndax béréb yooyu ba léegi ma nga nekk béréb yu méttee métti yoo xam ne dem fa dana jafe ki nga xam ne nag moom moo jiite lépp lu jëm ci wàllu armée bi foofee ci euh, Iran foofee ci Iran moom ma ngay wax ne fayul deretu ki nga xamante ni moom mooy achahid Ismaïla Haniyeh rahmatullahi alayhi nee na loolu ak dogula goo xam ne duñ ci deltu ginnaaw dañuy bañ a tàbbi nag ci fiir gi nga xamante ni médias yi ñu ngi koy fiir doomu aadama yi rawatina médias yi nga xam ñoom ñoo noonu ak ñun dañu jéem a te ndax faw ñu duñu xam suñuy pexe kon nag ñeen niñ a def na ba dal ci seen kaw nee na du ñoom ñooñu koy jàngal waaye journal bi di bidaxot axronot bidaxot axronot ma ngay wax ne li xam ne moom moo nekkoon ci jubluwaay waa nga xam ne kàngam la ci Hamas ñu bëggoon ko roy foofee ci Seyda te jot a dee mu ne njiit loolu bokk ci Hamas mu ne teewul am na ay gaañu gaañu yu sew yoo xam ne dal na ko waaye sax am na ñu altine bi bi ñu visé otoom pour daal di koy dóor li nga xam ne moom mooy bomb te nga xam ne avion Israël boo xam ne benn drone la bu amul hélicoptère moom lañ jabaloon ci moom xam ngeen Israël ay njombalaan lañ ci faat ak kàngam rawatina bu dee kàngamu benn ci palestinien wala Hamas wala waa Iran ñu daal fekki waa ji foofee ñuy dëkk bi ñu Seyda foofee ci Liban waaye nee na nga xam ne mooy responsable palestinien bi nee na nee na mouvement te wax na jëlee ko ci kàddu waa Hamas nee na waa ko ko dafa daal di mucc na bi nga xam ne roquette bi mu ngi ñëw nga xam no moom la drone israélien bi daal di sànni oto ba la daal di taal waaye boobu dafa fekk ba dafa fekk waa ji ci boppam génnoon doon dugg ci benn boutique nee na loolu moom moo ko dimbali nee nag foofu daal di bàyyi téléphone am nee na nag bàyyi téléphone ci biir euh, fi nga xam ne mooy wata ba nee na nag loolu sax moom moo ko dimbali ba gis ngeen wata bi di ngeen ko gis léegi ci kanam wan leen ko ngeen gis ne loolu bu fa nit nekkoon kenn waxatu ko kon ngeen bàyyi xel ne Israël ba léegi ma am politique gu ma am politique boobu nga xam ne day woy di faagaagal ay kàngamu waa Hamas kan la ci ñoom nag sama xel tey na du yan du Yahya Sanwar ndax Yahya Sanwar moom du génn xam ne su waaye Khalid Mashal Khalid Mashal Khalid Mashal laa gëm ni moom la doon ndax Khalid Mashal mooy deuxième tête santé bi mooy beneen personnalité bi nga xamante ni moom sax lañ bëggoon a jox pour mu jiite waaye yàlla dafa ci wér gu yaramam mu ne nañ jox Yahya Sanwar waaye mooy ki nga xam ne tey relation a am doole tey ji ci a taxaw moom mooy ki nga xam ne na ba ñu tàllee loxo yëpp dañoo bañ ñu la sama xel nag dem na ci moom du ma ne moom waaye à cent à quatre-vingt-dix pour cent ma Khalid Machal lañ bëggoon a faagaagal alaakulli xaal waa Israël wéy di songu quartier yu mel ni xay quartier bi ñuy wax Zeytoun démb xam ne moom lañ tey station internationale pour le pétrole foofu songu nañ ko ak fi ñuy wax euh, mantakatu Nadim ak fi nga xam ne benn genre poste de santé bu nekkoon foofii ci Zeytoun ñu daan di song ak ay hélicoptère yoo xamante ni dañoo def ay mbell jëmale ko ci béréb yooyu ngir mën koo yëngal bu baax a baax beneen delluwaay ci wàllu médecine la maanaam docteur yi ñoom ñoo ne fanweer ak ñett ñoo xam ne yegg si nañu ci foofu nga xam ne mooy l'hôpital ñëw ñëwee démb ci fajar daal di ñàkk seen bakken te loolu waa ñoom fa bombardé armée Israël wéy di def ay bombardement ba léegi ñaareel bi ci petti dëkk yi nga xam ne mooy Der Saryan ca nday jooru Liban beneen bi mooy am na gaal gu ñu dóor boo xam ne àgg na ci juróom fukki kilo ak mètre ak juróom ca digg géej gi muy waa gaal waa Angleterre kenn dóoru leen ku dul waa Yemen moo tax seen organisation boobu nga xam ne yëngatu ci ci wàllu géej gi muy Ikimoto ñoom ñoo ne démb am nañu information ci ne gaal gi amoon na lu jige huit personnes ba dix dix personnes waaye ci lu gaaw nee na daal ni nañ ba àgg juróom fukki kilomètres ak juróom ci digg géej waaye foofee lañ leen daal di baatre waxaguñu nag ñen fa faatu waxaguñu ñen ñoo fa gaañu waaye alaa xaal ñoom fësal nañu lu mel kilifa gi nga xam ne mu ngi bokk Nations Unies bokk ci nga xam ñu gën a kawe lañ ci wàllu kàddu démb fésal na leen li xew li nga xam ne moo xew biir Palestine lottu nañu dëgg dëgg dëgg dëgg kenn mënatu ko sax wax kenn mënatu ko sax natt dafa mel ne amul benn décision bu ñu mën a jël te décision boobu ba mu nekk loo xamante ni dana mën a andi foofu sa ak dal mu mel ne saa su nekk yëf ya ngi gën a tàng yëf yaa ngi gën a jax loolu moo tax 66 ci maanaam juróom-benn fukk ak juróom-benn ay jam-jam moom la officier bi ñu wax sabaat ki nga xam ne rey nañ ko ci loxo palestinien yi ñu confié Israël bi muy muy officier Israël bi xam naa dañ ko jéppoon mbooloo ko tiim ndax juróom-benn fukki jam-jam ak juróom-benn lañ ko jam loolu moom euh, ci benn ci benn colonie foofu lañ ko fekk daal di koy jam rawatina ci wetu fi ñuy tuddee institut bi ñuy tuddee euh, institut euh, médical bu Israël foofu lañ ko naxee ci benn colonie daal di koy jam jam-jam yu méttee métti loolu nag lu yàggoon la waaye dañ ko doon dog di génnee diir bi ginnaaw bañ ko xoolee xam ne kii juróom-benn fukki jam-jam ak juróom-benn lañ ko daal di jam ci beneen wàllu ñu ñaari avion yoo xam ne avion drone la daal di explosé ci béréb bi ñuy wax mantiqatu Eilit kooku waa Hezbollah ñoo fa jaar daal di koy sànni ci fi nga xam ne mooy colonie waa Israël mu wuuteeg yenn song yi nga xam ne avion drone yi song nañ ko daal di rotal lu ëpp ñaar fukki roquette foofu ci Galilée ba tey ñi nga xam ne mooy armee israélienne moom mu ngay tëj société boo xam ne day yëngatu ci wàllu finance ngir ngay day yëngatu ci wàllu am-am ak finance euh, ci yooyu le béréb muy dëkk yooyu nga ndax mbir mi àgg na foo xam ne tëj ko nag dafa daal di jot moom moo muy jotaay euh, dogal bi nekk fële ci Galilée ñu koy conseil supérieur bu Galilée démb explosé nañ fa benn bombe waa Hezbollah ñoo fa jaar muy ci benn avion boo xam ne amul ku koy dawal foofe mu ngi nekkoon ci béréb bi ñuy wax Eilit Hasakhir ni kon avion Israël boo xam ne hélicoptère la démb mu ngi jublu mu ngi mu ngi mu ngi sànni ñaari ñaari roquette ci quartier bi nga xamante ni moom mooy euh, xayu Tal Sultan foofee ci sowu dëkk bi ñuy wax Rafah ni ko doon ba léegi juróomi nit ñoo xam ne dóor nañu leen maanaam jam na ñu leen ci songuk ci benn famille kër gu ñuy wax Abu Kamil ci Muqayyam Barix ci digg Gaza niki noonu waa Hamas woy di gaaral yenn vidéo yoo xam ne moo am foofee ci Tal mooy ko dóoree li nga xam ne mooy bi daal yenn dëkk yoo am ak yenn colonie yoo xam ne door nañ fa ay yenn roquette ci beneen wàll tam gis tamit waa Hezbollah song gi ñu song yenn béréb yi nga xamante ni tamit ay siège la maanaam toogukaay la ci waa Israël lu mel ne kuréel bi nga xam ne 146 ci caserne Saraga nga xam ne dañ ko daal di song bu baax a baax ci beneen wàll waa Saraya Quds tamit woy di song tooguwaay ay yaxut ak ay ak ak ay ak ay soldats ci penku benn province centrale dóor leen ay lim ci ay roquettes waa Hezbollah wéy di songu ba léegi tamit yenn béréb yi nga xam te ni waa Israël ñoom ñoo ko moom rawatina ci yenn béréb yi nga xam ne mooy wax naa ko la kuréelu 91 ci Eilat Hasaxir ak yeneen place yoo xamante ni ay officiers ak ay soldats Israël ñoom ñoo fa nekkoon waa Saraya Kutsi wéy di bombardé ba léegi tamit ay mbooloo foo xam ne ay yahud ñoo fa nekk ci penku province centrale wax naa ko léegi ci ay lim ay roquettes démb jàmmaalo bu metti am ci càmmoñu mu ci digg Gaza Sam ba léegi jublu yeneen i béréb yoo xamante ni ña fa nekk moom mooy waa Israël muy kii su kii kii euh, ak Neyrem ak al ayn foofu tamit ci ay limu roquette yoo xam ne ay liquide rojom yoo rojom la yu nekk cent quatorze millimètres moom lañ fa sànni ni ki noonu beneen jëflante amaat ci M quatre vingt ay roquettes yoo xam ne waa Kataib la Qassam ñoom ñoo ko dóor ci fu sori foofee ci Tel Aviv ci nga xam ne moom mooy yahuut yi contestant bi ñuy tuddee Haïti mu ngi topp ko ba léegi kuréel bi nga xam ne mooy waa waa waa waa waa Kataib la Qassam ci der balax démb ñoom itam def nañu ay jàlloore ngir dëgëral peuple palestine seenu njàmbar ak seenu farlu ak ci mën a jàmmalloog ak dëkku fitna yi Israël teg ci ñoom tax na li nga xam ne mooy altine la vingt six août deux mille vingt quatre taxaw nañ ñun waa Hezbollah ci def lii bi nga xamante ni quatorze heures jot na song nañu ay béréb yoo xam ñoom dañ fay nekk di saytu ay xibaar foo fekkee Ramya daal di fay sànni suñu mbir ñaareel bi mooy songaat nañu yeneen bërëb ci wàllu jaww ji boo xam ñu ngi ko defee ci suñu avion drone ci seen place dogalukaay yu mel ni palace bi direction bi nekk cent quarante six ci caverne ci caserne Saraga ak yeneen i place yoo xamante ne ay officier ak ay soldats ñoom ñoo fay faral di doxantu foofe ñu tam daal leen fay song waaye ñetteel ñetteel song bi songaat nañu ci wàllu jaww lañ ko jilee ba léegi beneen béréb boo xam ne kuréel la bu quatre vingt onze ci Ilat euh, Xasaayir foofu tamit ñu daal di koy foofu tamit daal di nañ koy daal di koy songu donc ci gàttal kon ñoom saa su nekk ñu ngi ci wàllu woowu ñett ñaareel bi moom mooy ñetteel doxantu ci bii nag dem na ci wàllu euh, actualité ñu génn tuuti Palestine dem ci yeneen i wàll moom mooy euh, ñu ñëw ci songu bi nga xam ne waa risi songu nañ ko Ukraine songu bu méttee métti boo xam ne nag dëgg-dëgg président bi jaax na mën nañ ne armée Russie daal di nay sànni ci suba si lu tolloog téeméer ci ay roquettes ci wàll yu wuute ci ay mbooloo lu jëm ban yoo xam ne amuñu benn pilote ñu daal di jublu fi nga xam ne mooy Ukraine ba léegi ñu ngi wax ministère de défense bu Russie nee na li moom mooy armée Russie daal dinay sànni bu baax a baax ay béréb yoo xamante ni waa Ukraine ñoo fa nekkoon mu daal di koy taal ay béréb yu loroo loru ba loru nañ fa trop trop ak yeneen i taxawaay yoo xamante ni ay mbirum ay wàllu atelier ak ay manufacture ak ay béréb yu fa nekkoon ñoom itam ñu daal di fay yebal seen i seen i avion niki noonu tam ba léegi ñoom ba léegi waa Russie ñooy wax ñoom nee nañu rotal nañu système de nee seen organisation défensive bi ci wàllu jaww ji moom itam nee na yaatal na lu tolloog juróom fukki avion ak juróom yoo xam ne yu waa la yoo xam ne ay avion drone la ci ay oh, ci bomb bu mu leen taal muy bomb bi ñu Hermir ci ah, bu bu français boo xam ne mu ngi ko liggéey la vingt neen loolu mu ngi am dem ci vingt quatre heures nee na kon nag pertement yi nga xam ne tey jot na maanaam waa Ukraine loroo nañu démb lu tolloog mille neuf cent trente militaires ñàkk nañu ko loolu waa Russie ñoom ñoo ko ki nga xam ne moom moo jiite américain yi démb matal na muy ki jiite armée américain yi démb matal na visite doon def tukkib nemmeeku mu ngi ko matale foofu ci Tel Aviv waaye la mu wax mooy nee na euh, musiba xeex boo xam ne dana ëmb boobulee gox yooyu yëpp nee na daal dinay tàbbi mbokk yeeg xarit lii mooy lii gënoon fës démb ci xibaar yi ñu leen di nuyu di leen dellu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura jërë ngeen jëf jazakumullahu ba suba ak jàmm